lula neex neex na ma te loo bëgg bëgg naa ko loo bañ bëggu ma man te loo bëgg bëgg naa ko. salaamaaleykum mbokki internet yi ñu nuyooti leen rek fañ la daan nuyooti si dakar info point net. émission bu mag bi nga xam mooy yaay buzz yaay buzz soo ko déggee nag ñiy def buzz ñoo ko moo ko tax a jóg kenn si ñoom tey di doomu seen Assainies fa la juddoo eh, foofu si Unité 3 waaye ma nga màggee Kër Massar kooku mooy Lady Mounass Lady Mounass nag amagul album certes mais quand même ñëpp xam nañ ko wala bokk àdduna xam nañ ko ndax def na juróomi single single bi si njëkk nag mi ngi ko tuddee euh, Kaay Rayma euh, dégg ngeen Kaay Rayma dégg ngeen yéen a dégg voilà ñaareel bi dina nag euh, xanaa neex ba tey xanaa neex donc euh, ñu mu ñëw également def mbëggeel ak ki nga moom mooy Ouzin Keita eh, bu mu si jógee def crème fraîche ah moom la lancé def vidéo bi eh, muy vidéo bi yi moom moo tax sax ñu invité ko tey mais am na leneen lu indi beneen coow mu ne man rek cest à moom rek moom lay di menace rek <laughs> donc dañu si ñëw également tamit waxtaan également si carrière moom mi nga xam ni tamit mu ngi waajal. waajalul si kanam dina di ngeen si xam dara dama koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyu internetu dakar info point net Lady Mounass salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam di Mahou vraiment rafetlu naa trop sama teewaay fii tey si dakar info point net vraiment ma gis seen liggéey mu nice trop te temps yéen a ngi def buzz macha allah lakkal ngeen site internet yëpp. macha allah moo tax tey artiste bu ne tey bu sañoon ñëw toog fii si Dakar. info point mm. moo tax nuyu naa la bu baax. maa ngi lay fay maa ngi lay fay euh, laaj bi ma lay njëkk laaj euh, xëy na dafay concerné euh, si yow artiste yow jigéen. Mm. artiste ak solo surtout yéen jigéen ñi ak di ngeen di solo bay def buzz amuleen si problème. wala yow amoo si problème sax laay wax avec les man moom daanaka gars yi sax loolu la ñu wax parfois ñu ne les violences dafa sexy dafa lii mais que du loolu parce que sollu sexy wala sollu gàtt taxul yow nit ki nga bon wala. Mm. parce que ñun ay artistes lañ xaj na les violences benn les violences muy solo ak keneen ki nekk ci biti du benn. Mm-hmm. xaj na ñun suñu millier moo laaj loolu man sexy naa trop trop mm-hmm. dama koy woy mais je suis pas vulgaire man vulgaire ma ci sama solin daal. parfois clip bi mooy laaj loolu comme crème fraîche ma mujjee génnee gars yi dañ ko seetaan buñ ko bañ déggee son bi sax dañ foogoon lii ñàkk moo ko way mënuñu woon comprendre léegi mu moo way lii parce que kii bi dafa jël afrobeat carrément comme nigérien yi mhm. parce que osé la xam nga léegi mu moom day way dëgg la xale la mais dafa bëgg boppam day sañse day parfois ma génn fu graaw xam nga rek yaa ma gën a xam. mais concert yi concert yi tamit noonu ngay solo. concert yi tamit même pas su ma demee dinaa def lu tout loo xamante ne mooy yëngal public bi xam nga man moom <laughs> mais taxul nag bi xam nga mooy loolu. Hmm. xam na boppam waaye. Hmm. parce que milieu bi moo laaj loolu. milieu bi moo laaj loolu est-ce que jigéen mel na yow ak say moroom nekk ci aar bi soo koy jóg bëgg ñu tàllal loxo. metti na si yéen metti lu si yéen ndax mos nga si dund li nga xam ne tey jii euh, sooñ si mënee mosal tuuti rek euh, li nga xam tey jii doo ko fàtte wala bokk lu lay naqadi waaw loolu dëgg la maxu su ma nee aar bi neex na waxuma dëgg parce que aar bi dafa metti mm-hmm. neex na neexul daal xam nga yoon bi bëri na xaaxaam moom dama koy wax à chaque fois rawatina si ñun jigéen yi doo jóg si aar bi dafa metti trop te ku ne xam na sax fii musique bi doxul noonu dox am na suñu muy dox mais man damay bëgg di wax à chaque bàyyi ñi mën à chaque fois ñi may leen possibilité ñi génn ñi xam ñi mais metti metti bi mooy li tax ma koy wax dañuy xam ne kii am na talent mun na woy duñ la jàppale wala ñi lay téye si bëri na affaire yi si nekk trop na affaire trop xam nga waaye am na lu si nekk dafa bëri maxu mm-hmm. gaa yi tey ma wax ko xam naa leen la waxati na waxu dof mm-hmm. gars yi parfois damay wax dëgg bu ñu la nobee moom mm-hmm. damay wax dëgg ah dal na fi ñu bëri foog ma waxal gars yi nga xamante ne am nañ mu métti mu ngi mel ni tey nga ne xale wu naw di woy mhm. yaa ngi dégg ma lay maxu mhm. nga am noo mel pourtant dañuy xam ne kii war nañ ko mën a jàpp mais parce que doxaan nañ la nga bañ mhm. noboo noboo leen wala amul ñu lu ñu bëgg ak yow duñ la produit duñ la mës a jàppale ñiy taal ñeneen ñi nga xamante ne tey xamuñu dara ah. c'est seen kaw c'est seen kaw muy promotion canapé bi gars yi di wax. am gaay nañ ko waxtaanee. daf fi bëri boo nangoo nekk si kaw boo nangoo. Assane Ndiaye way na ko li ne si xaw ma lan ca usine ba. Mhm. fii moom boo nanguwee rek. nga taal di rek nga tàkk ni indi ma. ñëpp dégg la mais am na ñoo xamante ne nag gëm nañ seen bopp tey jii dañuy liggéey nekk yenn label di signé xaj na ñooñu dinañ tàkk mais am na ñoo xamante ne dañoo yàq aar bi tey ci jigéen ñi nekk si aar may wax dëgg ta dee ñooñu ñoo yàq aar bi moo tax tey jii ma génnee sama son boobu ne man rek mm-hmm. man dama gëm sama sexy naa trop mais ma ko man dama gëm sama bopp tey léegi mu mu am ci aar moo ko may boppam wala xaj na ak samay ñaanu waajur parce que man nee naa man à part musique bi damay liggéey sama liggéey boobu am naa loo xamante ne tey. Ah, dafa am loo ko booleel parce que damay def sama commerce xam nga à part musique man coiffeuse laa. su ma demee voyage samay bagage parce que damay gëm sama bopp. bëgg à chaque fois fu ma nit gisee si aar ma mais am na yenn artistes yi jigéen yoo xamante ne yàlla na ma yàlla ñoo yàq wax dëgg. Mm-hmm. parce da ngay am fulla gëm waxante dëgg. <laughs> bu ñëwee si euh, crème fraîche euh, euh, crème fraîche. toj na dëkk bi euh, am nga interview yoo yoo jot a def également seen euh, vidéo bi également tamit ñu bare dañ naan sax kii du sénégalaise euh, voilà donc lan la crème fraîche bi lan la crème la wala wala waxin la. waaw crème fraîche <laughs> ah, mooy li ma wax rek crème fraîche loolu maa ko tuddee maanaam. Mhm. di nga nopp nit ki nopp ko nopp ko nopp ma ko ba doo xam noo ko tuddee. moo tax ma tuddee ko crème fraîche. xam nga papa chéri. waaw ma ñëw rek tuddee ko crème fraîche. xam nga ak <laughs> Saint Valentin xam nga ku nekk nga sa crème fraîche ma ko. <laughs> voilà euh, comment ça se porte crème fraîche bi nan la ko Sénégalais yi wala àdduna euh, euh, jëlee. waaw gis naa ni crème fraîche moom mu ngi daw vraiment. Mm-hmm. maa ngi jaajëfal gàcc ngalaama TFM xam nga RDV télé yëpp gars yi rek kay jàpp rawatina ñooñu ma tudd vraiment dañuy jàpp si promo bi ñu jàpp affaire instant bi daal maa ngi liggéey daal maa ngi génne sama maxi incha allah incha mhm. ñu ñëw si li nga xam ni bala ñëw si maxi bi ñu ñëw si cinquième single bi nga xam ni ñu <laughs> yow rek nga ni man rek mhm. eh, eh, Lady Mounass mu indi coow mhm. eh, man rek loo si wax ba pare bala may ñëw si coow li waa man rek mooy man tey benn Lady Mounass dafa gëm boppam parce que maa ngi naan man la Lady Mounass man rek si xale bëri caaj bëri fem man la xale ba pare bi comme gars yi ñi ngi naan son bi son classe dama si gaaral noo Mounass amul jot boobu. ok yow xale ba pare ak lan. waaw parce que dama ne. Lady Mounass bëgg bës taxul nga wane sa cër yi parce que souvent nit ñi dañu ne man damay wane samay cër. dëgg la xaj na ni may solo moo sexy mais du ma wone samay cër mm-hmm. parce que wane sa cër mooy tey nga wone sa awra lu ñuy wax mm-hmm. man jamais ma wane samay cër mm-hmm. xaj na sol bi parfois mooy gàtt wala mooy xaw de ba mais jamais ma wane samay cër man moo tax ma way way boobu moo tax ñëw nii euh, da ngay gaalawoon nañ ko wax mbàcco mbàcco euh, euh, est-ce que loolu la du loolu wala dafa tombe moom waral ay gaaf comme ni ñu waxee wax dëgg yàlla xaj na boo tudd woon turam sa boo tudd woon turam Mbaye sa duma ma fi tudd turam wax dëgg yàlla gis naa nit ñi jël photom bind non man kooku duma ko gaaral duma ko tooñ parce que jigéen la comme man mm-hmm. maa ngi koy nuyu baax mais aw ma jot boobu man mm-hmm. xam nga lan laa concentré ci sama liggéey mm-hmm. nit ñi nag bu ñu bindee kii nii loolu xaj na ñoom la mais man yëguma tudduma waxuma wax kooku tudduma turam xam nga mu ngi liggéey liggéeyam xam nga parfois gars yi ñooy jaxase nit ñi gars yi parfois ñooy jaxase nit ñi kii woy na woyam bu tombé moom la bu tombé moom man li ma gëm laa way lu ma xam laa way wayuma kenn parce que dama man la Lady Miraas xam nga bëgg bës taxul ma samay cër parce que li waral loolu man dañ ma bind lu metti internet bi defe gars yi bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu menace bàyyi la bind ndax tey ji dama def interview ak Séné People mu def buzz ku ñuy wax maalaw tubaab nekk si internet bi mhm. amul lu mu waxul si man yàq sama der te xamoo nit ki xamul fu mu juddoo mu ngi bind benn ah yëguma ko woon sax gars yi ñoo ñëw ne ma mun a gis nañ ni bind mu bind la nouvelle salope de la république mhm. ne man lesbienne la damay def prostitution déguisée kenn xamul te xamoo yow ba ngay bind loolu yaa ngi yàq deru doomu jàmbur xamoo ñaata personne nga gaañ si fa famem parce que tey loolu indiloon na ma problème mhm. xam nga Kër Masar bu ma yoroo foofu ñëpp naan kii lu tax mu def lii te tey jii xamoo tey boo bindee loolu yaa ngi koy def pour bëgg sa site mu am doole bëgg bës mais xamoo ki ngay gaañ ok kon euh, tey jii. Euh, yow loolu gën a tax tey maxu man ma woy man rek boobu tontu ko xam nga. sexy naa mais man dama gëm sama bopp. gars yi nag bu ñu bindee ne man Mbathio njaay laa gaaral wala leneen man wax dëgg yàlla Mbathio tooñu ma ko tey. tooñu ma ko ëllëg sama moomu jigéen la xam nga. ñi nekk ci aar bokk aar kon tey ji kooku su ma ko. jàppalewul wala tey parce que jigéen na comme man ndax liñ ko defoon metti na ma kon man kooku duma ko gaaral ba kay kii duma ko classe voilà mi ngoog euh, xale bës bi moom laa koy tuddee ndax euh, fu mu génn rek je pense que di coow li bari euh, ñu may leen si tuuti rek si li nga xam moom mooy man rek ngeen am si tuuti aperçu bu ko defee ñu dellu si waat si li nga xam moom mooy interview bi man rek si xale voilà gannaaw bi ñu ko ngeen ko eh, dégloo voilà dégg ngeen li nga xam mooy man rek ak ki nga xam mooy Lady Mounass Lady man rek euh, c'est vrai def nga cinq single lan ngay xaar pour def album. waaye maxu xam nga rek mooy liggéey rek parce que yàgg naa si à tuuti rek mhm. yàgg naa si yàggu ma si parce que xaj na dama bokkoon si ay concours yu bëri mhm. tëbuma tëb rek way maxu mhm. dama judd fekk sama famille di way fekk di way musique pulaar. parce que dafa nekk sama dereer kon man foog ma woy mhm. mais yàkkamtiwuma dara ci sama aar parce que tey mun naa wax ni ay TFM mhm. mooy relève bi mhm. ay fajiri ay vacances à domicile yu ñu doon def yooyu yëpp dama si daan bokk moo tax yàkkamtiwuma ci aar comme maa ngi liggéey boobu ba moo tax nag il est temps léegi maa génn comme maa ngi nekk nit di enregistré benn maxi boo xam war a def six titres. Mhm. waaye ay clé USB la ñuy jaay bientôt dina génn si 2018. mais loolu du risqué ak euh, li nga xam ni moom mooy euh, album jaratul euh, Lady Mnass war a def benn six titres def ko si clé jàpp nga ni système bi nga bëgg jël dina baax. waaye ma parce que tey jii dëgg la musique bi jaar jaar doxatul dox naam yooyu gars yi dañuy wax rek mais mhm. xam nga. parce que dëgg la léegi da ngay toog sa sa biir kër mm-hmm. xam nga mun nga am lépp si internet beeg lépp mais au moins ñu xam kii sa mu ngi liggéey xam nga fi may waxee parce que tey jii lii di album wala benn max loolu dafa nekk loo xamante ne tey identité artiste la mm-hmm. ñu xam ne kii au moins def na dara mais tamit di liggéey di liggéey te amoo dara loo génne wane mm-hmm. pour man liggéey buy nelaw rek la xam nga il est temps munaas génne dara daal. voilà il est temps menace génne dara tey si say thème si lan ngay aborder yan yan yan kii lañ si mën a lañ si mën a a fekk. waaw man moom mooy li ma wax rek damay dund mbëggeel dëgg la. damay dund mbëggeel moo tax samay woy rek maanaka mbëggeel rek laay woy. Mhm. mais dina am loo xamante ne ñaari tiit yoo xam thème lay doon. Mhm. parce que bëgguma lépp lépp ne 100 pour cent mbëggeel mais dina am loo xamante ne. genre musical bi xam nañ la si mbalax. Mhm. xam nañ la si taasu. ñëw nga si crème fraîche mu nekk beneen style euh, genre musical bi. naka lay demee avant dañ doon wax Mounass dafa war a yem benn style dama ne non artiste da war a polyvalente mhm. waroo yem si benn style man musique laay def mhm. defuma benn damay def musique boo ko déggee tey Mounass boo ma woowee tey si musique pulaar bu ko woowee da ne pulaar laa gën a mën soo ma woowee tey si mbalax même chose parce que dama bëgg musique musique laay def mhm. moo album bi daal surprise lay doon <laughs> mën nañu xam ban moment lay génn dans combien de temps waaw dina génn xam nga parfois cat dafa gaaw mun nga wax dara fekk ñi ne moo xon en tout lu ma mun a xamal gars yi daal mooy dina génn si 2018 incha allah. Eh, voilà mi ngi noonu Lady Mounass lan mooy sa mot de la fin looy wax euh, internautes yi looy wax say say soppe. waa kontaan rek di leen wax Lady Mounass xale la ñi ñaanal ma bu baax parce que musique bi metti na trop bëri na ay affaire bëri na waaye dara gëm sa bopp rek. Mm-hmm. waaw surtout artistes jigéen yi ma leen wax bu baax ñu gëm seen bopp parce que man lu ne laay dégg si aar bi mais taxul ma xaddi benn yoon parce que xale laa nag aar bee mel noonu mais terewul léegi di gëm boppam lu ne dégg naa ko mais gëm sama bopp rek parce que xam naa fi ma bëgg a yegg waaye di leen wax kontaan naa rafetlu bu baax sama teewaay fii Makhou yow da nga baax man ak yow jamonoy Walf la woon ba léegi ba fii xam nga waaye kon jaajëf ñu ngi xaar bi très bientôt incha allah léegi bu naas mu doon rek suñu gan si yaay buzz si dakar info point net ñu bàyyi leen rek euh, ak ñi nga xam ni tamit ñooy commenté ñu commenté ah parce que tamit noonu la loolu moom mooy internet loolu mooy internet ah voilà mi ngi noonu merci beaucoup léegi mu naas ñu jox leen dig dajee beneen yoon ak beneen artist wala beneen groupe si yaay buzz dakar info point net lu la neex neex na ma te loo bëgg bëgg naa ko loo bañ bëgguma